cuuraay bu ci mel ni namarey doo fi nalawee ak yeneenu xeetu baax-baax yi nga xam ne nekk na lu jongama yi di faral di jëfandikoo rawatina ci seddaay bi ngir bëggal seeni àllaaji ba tax ñu ñëw fii ci marché HLM ngir jaaykat yi jox ñu ci ay leeral. jég pire dafa war a taal cuuraay quoi jég dëgg-dëgg mais ça dépend ci na koy taalee am ñoom seen njëkk dana amee sinusite am ñom seen jëkke doom asma bëggu ñu cuuraay mais avant da koy taal avant sa jëkke di wàcc boo ko defee tout temps sa nekk dafay am xet gu neex alors na jamono nawet wala sedd am sedd moom cuuraay daanaka dafay neex parce que tàngaay bi muy bàyyi foofu ci néeg bi moo war tamit sa jëkkër bu wàccee tamit même bu amoon coono sax bu dëggee si néeg bi rek xel bi day du doodu nekk si xam nga doomu aadama bi tamit day liw quoi temps wu sedd bi nii sa yax yi affaire yooyu mooy loolu bu fekkee ne da ngay jël ay cuuraay dina waral sedd bi du la mën a gañee lu bare bëri loolu moo tax ñuy jël cuuraay yi. ñoom jaaykat yi nag ña nga ñuy limal cuuraay yi nga xamante ne seen client yi moom la ñuy gën a faral di jëfandikoo ci seddaay bi. yi ñu gën a utiliser mooy cuuraay yi ñuy defaree fii yi nga xamante ne si boo ko taalee macha allah xet gi dina jéem si aussi dina neexal néeg bi. comme ay rëgg-rëgg yi fii nii soosu kaane yi kay tëmm fii xam nga ay tur yu ay naqutadi. ay cocaïne bi ay nax jidda xam nga ay ray ratti concert la yoy dal ñom ñoy gëna dox ci taw sedd bi quoi ña nga ñuy xamal ba tay ni ciuray mi jamono seddaay bi lay gëna dox ke ni tangay bi sedd bi la ciuray di gëna dox parce que bu dé tangay bi ay fort chambre moo gëna dox quoi mais taw sedd bi mom ciuray day dox bu baaxa a baax Dan baax ñun suñu ànd yi ni sax bo xolé tangay bu ko dee taal gis ni dirom na ci ciuray bi dafa xawon a wala leneen leneen dafa tang mais sedd bi bu taal ciuray nan dafa neex wa ñal doli li nga tal neex na yooyu cuuraay sax daanaka bu ci nekk daa am heure buñ ko war a jëfandikoo bu ñu sukkandikoo ci jaaykat yi. cuuraay moom am na sa dépend rek am na yu ñuy taal 18 heures bi am na ñuy taal à 20 heures am na ñuy taal 2 heures du matin yi ñuy taal ak 2 heures du matin yooyu moom secret la moom. daa am cuuraay yoo xam si ni mën nga ko taal suba gi mais am cuuraay yoo xam si moom guddi gi moom lay doon moom am cuuraay à part de heure nga koy taal. fajar gi xam nga ay 7 heures matin yooyu noonu xam nga climat bi day xaw a sedd upp boobu soo defee cuuraay da ngay am dara. ak guddi gi après timis bi noonu tamit soo defee cuuraay da ngay am dara mais cuuraay bu nekk ak ërëm nag. ñu nemmeeku ci ay xeet yu bari te wutee cuuraay nekk na lu jigéen ñi di jëfandikoo lu bari jaaykat yi itam dañ ci gis seen bopp bu baax. waaye laaj bi samp mooy est-ce que warul ñu xolaat ni ñu koy jëfandikoo ndax loole mën naa indi ay jafe-jafe ci suñu wér gu yaram.